mbokk yi tey jii ni ngeen dañuy doon fête dañuy fête suñu fête de l'indépendance muy bés bi Sénégal moomee boppam ginnaaw mbas gis nañ ne ñaari at yu weesu ci biir palais de la république dañu doon def rek ah, levée de couleur tey ji nag ñëw nañu fi ci place de l'indépendance def fi défilé bu yemandi boo xam ne wanewaat nañu taxawaayu l'armée bi taxawaayu gendarmerie nationale taxawaayu police nationale waaye aussi taxawaayu douane ak mboolem service yi nga xam ne lu mel nu sapeur pompier lu mel nu administration pénitentiaire lu mel nu eaux et ak parcs nationaux yi service d'hygiène lépp luy nga xam ne mooy li ñuy wax takk der te homme de tenue ñoo xam ne guddi ak bëccëg ñoom ñoo yor kaaraange réew mi ñooñu wane nañ seen taxawaay ak école yi rawatina le prytanée militaire ñoo xam ne xale yu tuuti dañuy tàggat ngir former leen ñu nekk ëllëg l'élite civile comme militaire muy une école exceptionnelle que également féliciter tey jii nag lii ñu wane donte ne génnewuñu oto yeeg machine yi wane na tey taxawaayu Sénégal taxawaayam ci aar réew mi aar frontière réew mi ci bépp musiba wala tuuxi doona boo xam ne ak fu mu mënti jógee ak nu mu mënti bindoo am nañu tey capacité pour neutraliser n'importe quelle menace sur la stabilité de notre pays loolu nag lu am solo la maanaam muy guddi muy bëccëg Sénégal tey jii joxe nañu li war suñu armée taxaw na ànd ak force armée gendarmerie ànd ak police wàllu renseignement ci ordre ak ci wàllu euh, li ñuy wax au niveau de l'ordre public loolu yëpp tey ci force de défense de sécurité yor nañ bu mot a ba ci douanier yi ci wàllu koom-koom ak lépp loo xam ne day jëmale suñu réew kanam la lii wane rek taxaway Sénégal may kañ armée nationale ak gendarmerie nationale ak ci kañ de façon générale lii ñu tuddee ay forces de défense et de sécurité man mi nga xam ne tey coobaru suñu borom maa jiite réew mi te nekk seen kilifa kontaan naa si seen taxawaay kontaan naa liggéey kon maa leen koy waxaat te di yokk wax lu gën a taxaw pour gën a aar àll bi nga xam ne suñu àll la te ñu war ko rawatina ci Casamance moom rek lañ fi desee si àll ndax foo dem ci bëj-gannaar gis nañ ne garab yëpp dee nañu wala yàq nañu leen kon nag di des muy Pot Saloum bu Sénégal faaw ñu sàmm ko te kenn kenn du ko mën a yàq wala di ko defee ay trafic yoo xam ne Sénégal mënatul nangu loolu kon nag jërëjëf kàcce ngalaama des force de défense et de sécurité ñu ñaan yàlla ëllëg wala boog déwén mu may ñu mbas bi jeex lépp jaar ci yoon ñu ñëwaat ci défilé bi nga xam ni défilé civil lay doon ak militaire ak défilé motorisé pour ñu wanewaat suñu feetu indépendance comme maa ngi ndokkale Sénégal yëpp moom leen euh, bésu indépendance ci jàmm jërë ngeen jëf